ñu wax euh, si wàllu euh, si kii di euh, premier ministre bu Canada bu Canada Justin Trudeau amaloo amal fi tukki nekk nemmeeku si Sénégal mu ngi fi ba tey sax parce que le 11 la fi ñëwoon ba le 13 ji la war a delluwaat si réewam moom nag si boobule tukki yi nag yëkkati na ay kàddu di sàkku si kii di président Macky Sall rek ak i ñooñam ñu xool rek ñu fii rek lewalee ñi lii di ñaari. borom ñaari tur bi mu nekk euh, mbir boo xam ne kii di président Macky Sall mun nañu wax ne ne il a réussi à mettre les points sur les i euh, nga xam ne euh, gannaaw ba kii di président bu bara bu Amérique bu fi nekkoon mu Amérique di Barack Obama gannaaw ba mu fi ñëwee woon yëkkati woon na tamit ay kàddu mais ñëpp ñu bëri dañoo jàppoon ne réponse Macky Sall nekkatoon lu leer yéen benn lecture ngeen ci am deux deux euh, ñaari nit euh, yu pays différents ay pays européens ak euh, États-Unis ñëw seet si i Sall yëkkati fii lii di góor jigéen au-delà de de la réponse du président mag Macky Sall ban lecture lañ si mën a jàng pourquoi rek fu mu toll nii européens yi wala américains yi di ñëw di wax mbirum góor jigéen fii suñu réew. waaw man li ma ciy njëkk a wax mooy muy ba mu recevoir Obama. Mm-hmm. ak euh, li ju mooy démb xaw ma barki démb bi mu recevoir Justin Trudeau mm-hmm. euh, président Macky Sall ba muy wax waxut ak ñoom sénégalais lay waxal te yaakaar naa euh, war nañoo épargne xeetu scénario yu mel nii te mën na ko parce que yoon may na ko ko parce que yoon may na ko bu naataangoom di ñëw ci Sénégal ba proposer ko ay points à débattre moom am na sañ-sañ ne ko point bii de bëgguma ñu waxtaan ci. su ma sañoon ñu wax ci économie bi ñu wax ci mbéy mi ñu wax ci njàng mi ñu wax ci justice et cetera et cetera. pour yow au de la réponse. au-delà de la réponse publique parce que ce qui s'est passé mhm. avant-hier xaw ma hier. Mhm. c'est une mise en scène. Okay. C'est une opération de communication non destinée au président au, au premier ministre Justin Trudeau mais plutôt destinée au peuple sénégalais. pour euh, la rek. bluff la te li ma la wax la président Macky Sall moo mag la premier ministre canadien ñoom ñaar ils ont été d'accord sur un agenda mënoon na régler la question dès la fixation des points à l'ordre du jour au lieu muy ñëw ba taxaw ci devant les sénégalais muy wax ni mu waxee bërki démb beneen bi mooy au-delà de ça aussi te wax nga ko on doit se poser la question pourquoi euh, Justin Trudeau bu ñëwee Sénégal mu fi am sañ-sañu waxtaanee ay tomb yu mel noonu alors que tey bu àndoon ak euh, borom euh, bu àndoon ak soxnaam ñu dem Arabie Saoudi Euh, soxnaam dañ koy tere pour mu ñëw fekkee waxtaan yi nga xam ne da koy sëkk ak naataangoom ñam fa fekk tey boo moom ci boppam amul sañ-sañ dem réew mu mel ni Iran taxaw ci parlement Iran wala mu taxaw ak le président iranien mu fay wax yu mel noonu wala di fa sàkku yu mel noonu loolu li muy tekki rek mooy euh, euh, bukki ni mu gisee waxambaane bukki bu yabee mbax waxambaane rek ci doxin ba la te nee nañu uude aussi ni mu la gisee noonu la lay ëwalee donc li muy tekki mooy yu mel nii war nañ ko bañal suñu bopp bi bu njëkk mooy ñun waruñu nangu kenn di ñëw suñu dëkk naan dañ fiy waxtaane lii wala lii beneen bi aussi mooy war nañu gën a góorgóorlu ci ay secteurs yu bëri war nañu gën a fulaal liggéey pour suñu dëkk ñu gën koo naw ci bitim réew. mais war ngeen nangul tamit kii di président Macky Sall moom il a été ferme dans ses euh, paroles. parce que yéen a yéen a ko reproché ak Barack euh, Obama ne lu mu tontu leerut waaye bi il a clairement dit à monsieur le ministre que fii suñu euh, fii Sénégal dañoo am suñu ay culture am suñu ay religion te moom si magistère am duñ fi nangul góor jigéen loolu moo war ngeen ko mën a nangul xanaa mais mais li ma wax la fi mu doon gën a fermé mooy euh, sénégalais yi mu xamal ñu nekk premier ministre Justin Trudeau bi mu fiy ñëw bëggoon na waxtaane lii mais dañ ko xamal que Sénégal loolu du waxtaanu public parce que nañu waxante dëgg euh, boo leen xoolee réew yi nga xam ne tey ñooñu borom ñaari tur yi am nañ fa doole mooy moment bi nga xam ne nangu nañu euh, débattre publiquement de cette question parce que tamit ñoom bokk na ci seen façon de faire ñoom ni ñuy doxalee seen agenda ay étape ay étape étape la mooy nañu fexe ba poser le débat sur l'homosexualité nit ñi di ci débattre en public premier deuxièmement nañu fexe ba les hautes autorité du pays parlent de cette question là yaakaar naa les sénégalais lu ëlëm xel yi lu ëlëm xel yi nit ñi kii di euh, le Justine moom euh, il a parlé de d'évolution des lois mu mel ni comme à chaque fois tubaab bi bu ñuy ñëwee suñu dëkk yi ñoom dañuy jéem a dicter euh, comment on doit faire loolu déjà c'est c'est c'est à déplorer c'est à condamner parce que la police administrative est un domaine de notre politique intérieure mm. te yaakaar naa après bu ñu jegee ci beneen tomb bi nga xam ne si lié je pense à nos relations avec la France dinañ ci ñëwaat parce que am na des question yoo xam ne ça relève de la des relations internationales la la la la sécurité la coopération sur la sécurité les accords économiques ak yu demee noonu sur la santé ak yu demee noonu yooyu on peut en discuter mm-hmm. ah telles que les questions liées au minorités loolu c'est des questions de poli police administrative c'est des questions yoo xam ne boo ñëwee ci réew ça ne relève même pas du président de la République mais c'est des questions qui sont déléguées à des ministères de souveraineté ou bien des ministères sectoriels naturellement cette question la ki nga xam ne moo ci yor baatu nguur gi c'est le ministre de l'intérieur donc waruñu nangu sax que une puissance étrangère nous impose ou bien se donne lu pouvoir de s'immiscer sur des questions yoo xam ne c'est des questions régaliennes ñun ñoo ci war a waxtaan par rapport ak suñu trajectoire par rapport ak suñuy valeur ñun ñu jël ci loi yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom lañ jàpp ne gën a nekk en adéquation ak ni ñu gisee yëf yi donc il faut que mu am benn réponse bu forte ni ma ko waxee léegi nous devons refuser à ce que ce cette cette affaire là soit une affaire qui pollue notre débat boo xoolee mbirum góor jigéen Sénégal yàgg nañu yàgg na ay ay ay ay ay borom ñaari tur yi dans les quartiers ak yu demee noonu mais c'est des question yoo xam ne ça a été toujours traité en arrière-plan donc le fait que tey ñu koy waxtaane en public même instant bi je pense que nous sommes victimes d'un piège boo xam ne xamaguñu fan la ñuy yóbbu comme dañuy jéem rek euh, dans la mentalité des gens ñu jéem euh, ba dugal leen ko seen bopp exactement dugal ko ci suñu débat euh, public moo ngoog di ci waxtaan léegi nag deuxième étape bi mooy fexe ba positionné ay chercheurs ay boroom xam-xam yoo xam ne dinañu justifier yu mel noonu parce que on sait que au aussi nii la yëf deme demee jusqu'à ce que ñu organiser ay concert ak yu demee noonu utiliser ay humoristes dem ba tey boo demee au Canada la question de l'homosexualité est banalisée am na nooy nooy nooy comporté wu devant un homosexuel les gens te traitent d'homophobe parce que derrière ça a toute une idéologie toute une tout un savoir qui est construit et logique de sorte que tey boo nekkee intellectuel wala nga nekk un homme politique ñemeetoo exprimer say point de vue par rapport à ces questions là loolu dañ ko war a Sénégal waxatuñ sexe masculin waxatuñ sexe féminin genre la ñuy wax moo ñu noonu donc da ngay gis ne que aujourd'hui nous sommes les les acteurs de agenda boo xam ne du suñu agenda dañoo nangu ñu imposé ñu ko loolu yëpp nag li koy indi rek mooy te yaakaar naa sénégalais foofu la ñu war l'action c'est par rapport à nos statuts yaakaar naa ce qui fait la force des pays à l'étranger c'est leur poids économique moo tax waruñu nangu ñuy ñuy perte suñu temps ci ay débat yu mel noonu mais dañu war a gën a mobiliser suñu askan gën ko réorienter sur la construction de état fort un état respecté pour que sujet yu mel nii ku ko bëgg a euh, euh, poser suñu dëkk ñu mën a taxaw xamal la ne carrément loolu d'accorduñ ci te suñu ñàkk d'accord boobu nga sentir ci ay risques yoo xam ne mën na la ci topp yow état bi nga xam ne yaa ñuy force pour ñu dugg ci agenda boobu. d'accord euh, l'autre fait marquant bu ñu ci euh, semaine bi ñu weesu gis neen kii tamit euh, di euh, euh, ambassadeur bu réewum France euh, di Philippe Laliou moom gannaaw bi ko invité ci émission jury bu RFM grand jury moom ngi xamle ne terre bi du mën a pare avril. moom dafa mel ni fu mu toll nii rek dafa contre contredire version officielle bu état bu Sénégal yow en tant que sénégalais pas en tant que militant de PASTEF en tant que sénégalais noo jàngatee mbir boobu boobule est-ce que euh, le le l'ambassade du de la France il était dans son euh, dans son rôle de communiquer de communiquer sur l'agenda euh, boo xam ne rek état bu Sénégal la concerné. waaw boo d'abord moom on s'attendait à ce qu'il se comporte comme un diplomate mm c'est vrai que euh, actuellement dans le cadre de la diplomatie économique mm-hmm. tous les ambassadeurs accrédités dans les États yi nga xam ne fa la ñu nekk am nañu droit saytu nekkin wi nga xam ne moom la fa seen entreprise yi nekkee mm-hmm. mais de manière diplomatique moom dañ ko doon xaar mu am comportement diplomate mais sur cette question il s'est comporté comme un hors-la-loi comme un délinquant parce euh, la convention de Vienne de 1961 mmh. sur les les privilèges et immunités des diplomates euh, dafa dàq comportement bu mel ni à son article 41 mmh. parce que boo demee ci article 41 bi ñoo ngi lay xamal ne que l'agent diplomate doit euh, éviter de s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État mm. ci yan question la prononcé wu c'est des questions liées à nos infrastructures c'est ce sont des question aussi liées à notre poli police administrative mooy suñu mouvement associatif yi nga gis ni que tous ces deux questions la c'est des question qui relèvent encore une fois de plus de notre politique intérieure. mu mel ni ingérence bu ñuy wax ci réewum France ba tey moom moom la dëggal. ingérence manifeste la. Mhm. moom Lalliot il incarne la phrase impérialiste. Mhm. la France colonialiste la France fasciste. dafa bokk ci français yi nga xam ne ñoom. considéré wuñu suñu réew yi comme des états indépendants dañu considéré suñu réew yi comme ay territoire d'outre-mer ñuy nag naqarlu réaction bi nga xam ne gouvernement bi am na ko ci parce que cette affaire la c'est c'est une c'est c'est pas un incident diplomatique. mais nag euh, ajuma foofu nag euh, dafa mel ni état bu Sénégal moom il a été ferme via son ministre de l'infrastructure euh, euh, le maître Oumar Youm moom euh, lettre bu mu envoyé homologam di réewum France mu ngi xam ne ne carrément que kii di ambassade bu réewum France mayatuñ ko benn yoon muy wax si loo xam ne rek ñeel na contrat bu dox réewum France ak réewum Sénégal te tamit dafa jàpp ne. kii di euh, Philippe Lalliot moom intérêt euh, entreprise française yi lay jéem a défendre waaye lii di terre bi délai bi bi leen euh, joxoon di leen ko respecter au moment voulu dafa mel ni comme Sénégal mu ngi commencé di fippu digganteem ak réewum France mais waaye question bu ma la nar ak poser est-ce que bi lay fippu dina continuer. waaw li ma ci bëgg wax rek rapidement ci li nga wax léegi mooy ku fekkee bi président Abdoulaye Wade di. di di di di di dal ci kaw ambassadrice su États-Unis bi fi nekkoon ci benn contribution rek bu mu bindoon. Mhm. Euh, li Umar mu def du la du la du la du la du la yëngal. Euh, d'abord ñoom ni ñu ko defee gouvernement parce que je parle pas de Umar parce que Umar Yum kii du naataangoom kii c'est un diplomate man li ma jàpp mooy bu fekkee am na keneen koo xam ne war na réagir ci réew mi c'est le ministre des affaires étrangères. Mhm. parce que le fait que Oumar di réagir ba léegi daf koy jox dëgg. mais waaye si question infrastructure la wax te ministre euh, Oumar mooy moo yor wàllum infrastructure. waaw Oumar Youm léegi buy tontu kan lay tontu parce que les les entreprises françaises mais lettre bi da ko adressé à son homologue français. le pose un problème de forme parce que Oumar Youm buy wax. naataangoom France il parle avec le ministre français qui gère les les mêmes questions qu'il gère au mm, Sénégal mm, mm. parce que les entreprises françaises qui opèrent au Sénégal sont sous couverture diplomatique française donc bu ci ambassadeur bi waxee euh, bu ci amee ay jéego ci dox il il le fait en tant que diplomate suñu diplomatie nag yaakaar naa bu weesoo président de la République ki ñu ko ki ñu ko jox te mu ciy yëngatu c'est le ministre des affaires étrangères donc da ngay gis ne doxalin gu cuune lañ ci doxal beneen bi mooy pour ñëw ci sa question bi. Mhm. mais li gën a am solo pour man li ñu amal solo ñun sénégalais mooy lu may sañ-sañ euh, ambassadeur France. di comporté woo ni mu comporté woo barki démb te loolu moom njëkkeewu ko ki nga xam ne moom moo ko fi remplacé mhm. bañ fi yëkkatee mbirum wàññi tarif yi ci autoroute à péage bi mhm. gis nañ ki nga xam ne moom la remplacé mu defoon ab doxantu dem ba aéroport Diass ànd faak benn média boo xam ne moo ngi ci moo ngi fii ba li mu xamal li mu wax ci média yooyu noonu devant tout le monde dafa ne buy lu ci manti am rek dañ koy waxtaanee. Mm. te jamono jooju président de la république génn na ba xamal ne tarif yi nga xam ne moom la ñu ci autoroute à péage bi dinañ ko waxtaane mu mel ni comme suñu état yi dañoo manqué de fermeté devant la France. parce que tout simplement dañu jëlul suñuy responsabilité dañoo liggéeyul pour moom suñu bopp ci yenn aspect dama lay jox France France mooy ban réew du point de vue budgétaire. Mm. tey boo demee ci budget bu Sénégal li ñu France di lebal. moo ngi toll ci cent trente milliards plus des cent seize milliards yi nga xam ne mooy boo dajalee lépp luy dette bilatérale mm. maanaam boo dajalee li nga xam ne yeneen réew yi ñoom ñu koy labal ci xaalis mm-hmm. li ñu France di lebal ëppee na ko presque lu tollook fukk ak juróomi milliards mm. France mooy ban réew France mooy réew mi nga xam ne day jël xaalis jox ko Sénégal sous forme d' appui budgétaire te mm-hmm. appui budgétaire sans objet lay doon te boo ko dàqee ba ci biir li muy te li muy permettre mooy mu fay fonctionnaire yi mooy mu permettre état bi mu mën a stabiliser wu nekk état continuer di dox boo xoolee ci réaction bi Oumar yu euh, def. Mhm. def ci utiliser benn mot à la mu ne nu demandon à l' état prêteur. Mhm. de rester à de rester dans son rôle. Mhm. mais wolof Njaay da koo lépp. dafa ne ku la abal le mot abal ici a à son importance. daf la ne ku la abal ay bët. fu la neex lay xool donc yaakaar naa l'affaire c'est pas tout simplement d'adresser des remontrances mmh. ou bien de s'insurger mais c'est de voir comment travailler pour reprendre notre souveraineté économique et pouvoir décider pour nous-mêmes et pouvoir s'afficher devant la France comme un État digne et respectable pour moi c'est là-bas qu'il faut orienter le débat mooy comment faire sur quel levier s'appuyer pour que ñu gagner suñu autonomie suñu souveraineté progressivement par rapport à la France parce que yaakaar naa on en a assez dit tey boo xoolee tous les segments ou bien les segments les plus importants de notre économie sont entre les mains de la France te comme ni ma la ko waxee il est dans son rôle d'appuyer ces entreprises peut-être ni mu ko defee c'est ça qui n'a pas été diplomatique mm. il est allé au-delà des des des des droits que lui confère la convention de Vienne bi nga xam ne moom moo tënk nekkinam fii ci Sénégal mais il est dans son rôle loolu ko ko kenn bañal